salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Wama Sport tey ñu war a ñëw ci benn vidéo boo xam ne wax ci gaynde bi di Pape bi nga xam ne tey doon fool coupe de Angleterre équipe bi nga xam ne mooy Tottenham Tottenham sax moo dul 1-0 mais ne def na ko ci max ba di ootaaral def ñëpp nangu nañu na ci max boobu yëpp def ko ca Pape Matar Sarr def bu réer yi ginnaaw bi mu nekkee milieu terrain boo xam ne Tottenham tey dañ ko choisir pour football ci bi bo xamne ari kan moko duggal gene pa marata amna 15 ballo touché 15 ball yo xam pa marata da ko touché mam da ko dóor amna 85 passes léegi mu nek nak 90 réussir manam 85 passes yop mën ñu wax ne 80 passes yop dañu réussir waaw mom euh 13 duel duel mais 13 duel yi 8 duel yop dañu réussir waaw kon Pape Massar dina max bu rëy rëy vraiment ak présentation boo xam ne au niveau lu tey jii wane na man Pape Massar xale laa boo xam ne am na sens ci football war na maa mën a bokk ci équipe bi nga xam ne mooy équipe Tottenham bi te titulaire comme ni ko ni ni ko coach bi war a compté ci moom te yaa ni coach bi commencé na compté ñoom ndax te da doon dugg deuxième mi-temps bu Maxi bii di jëm ci championnat bu Angleterre ci Premier League ba Pape Matar Sarr titulaire sax moom Pape Matar bu titulaire wul ñi ngi reefe bu baax mu mën dugg ca deuxième mi-temps ba comme pourquoi mu fay 40 minutes ba 35 léegi nag performance yi guddi gi gaynde bi dafa am ñu waxtaan ak moom nda ko gën a entraîné ñeme entraînement yi gën a gën bu baax bu baax a baax ndax ñun kat ñu mën a am lu ñu bëgg euh, gaynde mën a ñëw titulaire bu baax Tottenham mën a jël ay coupe mën a am beneen euh, xarkanam boo xam ne dina ko ne waaw kon gars yi nag loolu moo nekkoon vidéo bi ñu xamante ne faral ñu dañoo kontaan bu baax ci match bi nga xam ne Pape Matar Sarr def na ko euh, Pape Matar quel joueur de Pape Matar jour la boo xam ne vraiment vraiment c'est incroyable euh, euh, ci équipe Tottenham bi ndax donte léegi coach bi da mais doon soxla mais vraiment gis ni mi wax dama kaa soxla ba léegi mi ngi koy may ay 20 minutes di ko may ay 26 minutes te ba tey mu titulaire loo ko est-ce que Pape Matar Sarr ni ko titulaire yi est-ce bi pare ko def ko titulaire bi nga xam ne mooy équipe bu Tottenham bi kon gars yi nag euh, ñu ngeen nag seen xalaat ak seen gis-gis ci commentaire bi nem ne nga Pape Matar Sarr ndax mu toog Tottenham gannaaw Tottenham ñu ngi koy commencé footballoo ak ñoo gis yeneen équipe di ko laaj mais Serie A mais Premier League ak yeneen équipe yooyu ñu laaj bëgg Pape Matar Sarr léegi nag bu dee mën na am sa temps de man day remercié sport mais espère wu Pape Matar Sarr toog Tottenham ndax Tottenham club la bu club bu mag la boo xam ne war na mën a gagner Premier League war na mën a gagner Coupe Angleterre war na mën a gagner sa Ligue champion te ñu xel lenn Tottenham bii Pape Matar Sarr bu fa nekkee foo la prouvé damay fàttali comme ça maye Liverpool bi mu ñëw Liverpool pour mu def fa Ligue des problème la ba jël fa Ligue des ba final fa trois final ba jël Premier League ba amaat yeneen coupe yoon saa maye jël ne fa kon Pape Matar Sarr am na mille chance pour man a wane boppam bu baax a baax ci footballu mondial kon gars yi nag loolu moo nekk vidéo bi donte lee gudd na mais vraiment gars bi baax wékk ko suñu équipe bu moo tax ñu waxee nii